voilà mu doon kon euh, mbir mu tiis mbir mu doy waar moo xam ne kon moom la ñuy dund jamono ji fii ci marché Ocass bu Touba muy lakk gu métti goo xam ne ci jamonoy euh, vingt deux heures jàpp vingt trois heures ci diggante boobu kon lanu kon nemmeeku mu doon lakk goo xam ne sabab bi xamaguñu ko waaye li ñu leer mooy li fi yàqu bëri na lool lool lool lool lool ndax fi nga xam ne. mooy ci côté Ndiobentaay bi fi maquette bu njëkk bi nekkoon daanaka mboolem place bu fi nekkoon dara desatu fi ni ngeen koy gisee ba fi mu toll nii secouriste yi ñu ngi fi sapeur pompier ñu ngi fi gendarmerie police population bi kenn ku ci nekk ñëw nga ngir wàllu si ñi nga xam ne jamono ji ñoom ñooy lakkale fii ci marché Ocass bu Touba. du guleet nag ñu nemmeeku lu ni mel ndax fu soriwul dara fi lakk gu metti gu mel ni amoon na fi lu bëre bëri ci ay xaalis bu takkoo takku yàqu fi ay jumtuwaay yu bëri loolu nag mu doon loo xam ne lu ñuy nemmeeku la fii ci marché Ocass mu mel ne nag question bi nga xam ne ñu bëree bëri saa su ne ñu ngi koy posé wu mooy sécurité ci wàllu marché Ocass bu Touba sabab bi mooy daanaka fi ñu taxaw ci digg tali bi boo ko xoolee da ngay foog ne mooy biir place yi daanaka noon lañ ko occupé bëccëg ngir nga dox fi jafe-jafe la loolu nag bokk na ci li indi jafe-jafe yi lan moo ko taal ba fi mu toll ni xamuñu ko ndax liñ mën a njort bëri na branchement clandestin yi am na fi courant bi daanaka nu ñu neex loolu lañu ko ci branché ak yeneen yoo xam ne am na fi li ñu mën a nemmeeku daal mooy li fi yàqu bëri na incha allah dana nu ci dellusiwaat na mu gën a yaatoo ci lakk gi nga xam ne moo am ci guddi que tey ji di sambi jàpp dimanche fii ci marché Ocass bu Touba.